mais maa ngi lay ziar bu baax. ci loone sant yàlla bu baax. daal da nga ñëw nekk amateur c'est danse. mais comme toujours xam nga ñun avant tout bu dul dara ay amateur la ñu. donc tey waa diaspora bi daal di organiser rent DKR xam nga bu ñu nee rent DKR ne diaspora wax dëgg yàlla aussi di rafetlu nag liggéey bu rafet bi ñuy def parce que tey ñi ngi jàpp ci combat bi parce que xam nañ ni feebaru Sénégal tey mooy jàppale xale yi. te ñoom ñi ngi béy seen wàll ci ci tool bi pour jàppale xale yi organiser ay journée yu neex nii pour bégal xale yi ak ñun amateurs yi xam nga loolu xewal la. naka nga gisee làmb. non wax dëgg yàlla làmb ça va très bien pour wax la ni réew mi ñi fi nekk di liggéey bëri nañu dañuy soxla jàppale nag parce que boo xoolee tey ñi tudd mooy promoteurs yi nga xamante ni tey ràññee nañ leen ci làmb ji duñu ay promoteurs yu mag a mag mais lépp lu ñuy def ci làmb ñoom la amateur yi bëgg commencé ci jamaïcain mu ne ko l'enfant terrible de la sénégal Sénégambie wax dëgg yàlla boo gisee nekk xale bi gën ndaw ci promoteur yi te ñu gis ko journée yi muy organiser ci làmb bi ne déet ay magam Assane Ndiaye Baol production yàgg nag ci làmb nekk nag nit koo xamante ni tey buñ ko doon gëstu lañu mën a wax ci moom bari na ci defar ak ki tëgg journée yu neex dara soxalu ko rek lu dul luy bëggal amateur yi moom newul boppam amul solo mais dafa ne moom d'abord amateur la man ak amateur yi man ak yéen benn lañ moo tax lépp lu muy def rek da ciy sóoraale amateur yi parce que dañoo xam làmb Fallou Ndiaye moom it nga xam ni kenn demul mu des liggéey itam moo ko ñor moo lay wan ni mbir mi bawol la xam nga bawol bawol ñëpp xam nañ leen ci liggéey bañ nañ ko ba amateur u bawol bawol sax fu ñu nekk day riis parce que dañuy dem liggéey am na ñu lu ñu jëndee billet ñëw toog stade waxtaan bu neex bu ñu leen daanee ñu ñibbi bu ñu daanee tamit xumbal ko mu neex mais làmb loolu la ça veut dire que sport la boo xam ne tey dafa war a boole xool yi rafet et puis ñu yéenante jàmm mbir yi ku ci nekk xaj nga ci de mais nañu jàppalante di yéenante jàmm la solidarité su ko defee avancement bi dina gën a yomb liggéey bi ñuy def tam dina gën a yomb te xale yi tam dinañ ci gis seen bopp parce que làmb nekk na loo xam ne kenn mënatu koo génne Sénégal kilifa yi réew mi jàpp ci parce que kilifa yi réew mi boo xoolee li ñuy def ci football bi le quart bu ñu ko defee ci làmb rek mu dem tey promoteurs yi mérité nañu chaque année promoteur bu nekk ñu jox la subvention wu tant de millions pour sa saison loolu promoteurs yi mérité nañ ko parce que du CNG du dara c'est des privés privés yoo xam ne tey kenn xamul dañuy dem bu ñu bool bool bu ñu dem lu ñu jaay ñëw tëggee ko làmb mais ñooñu mérité nañ ñu subventionné leen keneen ak keneen noonu. tey réew noonu lay doxee le sport il faut nag ñu defaa taxaw seetlu jiitu réew mi comme nag yàlla def na moom lu ne bëgg na ci dugal loxoom mais làmb wax dëgg yàlla defagu ci loxoom ñu gis. arène nationale nag bu amee c'est le dû bañ koy diggee yàgg na mais boo ko fi defee dafay am lu muy lu muy àndal accompagner les promoteurs les promoteurs ñooy ñi nga xam ne ñooy accompagner la jeunesse keneen ku ko wax loolu da koy ndax. dañuy naan président président wàccal ñëw dugg ci arène bi wàccal waxtaan ak promoteurs yi su ko defee ngeen jàppale leen ñu am subvention lamb li muy rëy rëy bu amul promoteur lamb du am non defal lu la neex tey bu promoteurs yi toogoon seen kër lamb dootu fi amati CNG organisé wuñu fi dara loo xam ne tey mën na ca dëkk à part drapeau chef de l'état wala CEDEAO te dañ leen di subventionné mais lan mooy ndey lu tax nag tey promoteurs yi wax dëgg yàlla année bi jot ñu subventionné leen loolu je pense que ni mérite la rôle la boo xamante ni tey njiitu réew mi war na ko boole ci programme am yeneen sport yëpp dañ leen di subventionné lu tax promoteurs yi nag ñi nga xam ne ñoo tax ñu naan làmb tey jii ñu jàppale leen c'est le problème boo xam ne tey moom la ñuy dañ koy dund di ko dund mais il faut njiitu réew mi jàpp ci wax dëgg yàlla. loolu dama la ñëw toog ñu yaatal ci waxtaan ci bu baax a baax. mais dina ci baax xamul benn problème xam nga ñun da budul dara ay sportif la ñu sport la ñuy dund d'abord avant tout sport la ñuy dund dafa nekk lu particulier loo xam ni uti na sport yëpp parce que làmb li muy def ci réew mi moom rek a ko mën du football du dara tey grand combat bu amoon fii football am fole gars yi duñ dem ci football ba te tey football xoolal championnat bu amee kenn dematul seetaan làmb rek moo fi dese ay amateur yoo xam ni mu neex mu naqar dañuy dem lu bien cher cher cher dañuy dem seetaan yi te nag loolu boo amee loolu ci réew ça veut dire que ni nag dafay temporiser parce que boo toogee ba week-end bi liggéey wala nga toog sax yor dajale semaine bi nga dajale lu yóbbu stade comme xale yi ni ñu koy defee dañuy ñëw toog ci tribune yi dañuy kontaan parce que li ñuy dund ci biir làmb bi ambiance ni ñu koy waxeeti sax folklore culture mais lépp ci làmb la mais tey ñooñu boo leen jàppalewul ça veut dire que ni da nga seetaan sa réew te njiitu réew foog mu defaat taxaw seetlu. kontaan naa ci ñoo ñoo far yéen ça